yes saay kon nag gars dañuy meeting te dama leen waroon defal opération rëbb dëmm dama ko digee woon te pare naa ko noppi naa ko bouclé nañ lépp si opération rëbb dëmm bi ngeen ci am lépp Amadou Ba ci juddam ba tey ci lépp lu mus a sàcc maanaam ci biir Euh, opération rëbb dëmm di ngeen ci gis déclaration de patrimoine boo xam ne ñun suñu enquête moo ko génnal Amadou Ba ci sàcc ci xeetu sàcc Amadou Ba yéem na sax Macky Sall ci sàcc yéem na Macky Sall ci mën fen xam ngeen ñëpp xam ngeen Macky Sall ci nu mu mënee fen waaye tey bale citoyen bi dafa woote commandant de l'armée bi dafa woote le lider charismatique de la jeunesse consciente dafa woote le leader de toute nation dafa woote mooy l'incontournable magnifique extraordinaire duo de choc Ousmane Sonko Diomaye fay le recto verso de la pièce souverainiste ñoo woote tey donc na ñëpp bàyyi lépp lu ñu jàppoon delluwaat fu ñu jógee woon toog taaxirlu ñaari suppandaanaan yooyu yenent yooyu yàlla yónni pour ñu rëccal Sénégal donc tey ñëppay déglu ñëppay toog taaxirlu stade ba fees na dell tey ndogu sax jotagul donc nañ toog xaar suba incha allah campagne bi tey lay jeex suba ñu defal leen opération rëbb dëmm bu saf-sap di leen wax ne nag affaire yi jeex na di dëkk yëpp bu ñu changé seen système te doon réclamer panafricanisme di réclamer souverainisme seetluwu leen dala bale bi lañ njëkk a utiliser le set setal national mbalit nit yi mbalit yi dañ leen di buub ñu abale mbalit mi la ñuy buub seen nangam ñu abale Burkina Faso la bale citoyen lañ utiliser woon pour jëlee fa le dictateur Thomas Sankara euh, le dictateur waaye euh, Thomas Sankara Blaise Compaoré dis-moi safrula Blaise Compaoré le dictateur Blaise Compaoré Thomas Sankara moo fa indi woon le citoyen balai Thomas Sankara en tant que patriote panafricaniste moo fa indi woon le citoyen kon bale ba dafa yàgg boo leen demee Burundi euh, kii pas Burundi c'est euh, fëlewaay hmm, comment ça s'appelle encore maa ngi maa ngi bëgg a fàttali Rwanda boo leen demee Rwanda président bu bu mu ñëwee bale bale njëkk a indi dekki liñ naan set setal national wala le balai citoyen Blaise Compaoré wax naa ko jàll nañ dama ne Thomas Sankara balai citoyen la indoon donc foo leen dem Rwanda aussi gis nga dëkk ba nu mu setee dimanche dañuy set setal bale citoyen Mali it ak fi nga xam ni moom mooy Burkina yépp bale citoyen kon nag gaa yi jël leen bale citoyen na set wecc Rwanda moom la ñu def Mali moom la ñu def Burkina moom la ñu def depuis Thomas Sankara donc jël leen bale yi bu kenn bàyyi benn bale Paul Kagame moom la def bu kenn bàyyi bale jël leen bale yi gars yi bale bi secret la day wane ni dimanche mooy set setal national dimanche lundi du set setal di lundi la ñuy fuural Sénégal déglu leen dimanche set setal national lundi fuural dimanche set setal national di fuural xam ngeen dimanche saa yu ñu set setalee dañuy pare fuural kon nag lundi mooy fuural ba dimanche set setal national lundi fuural ba ñu jël premier tour mooy fuural kon na set jël leen balaya gaa yi woo leen seen yaay yi seen papa yi seen maam yi seen nijaay yi woo leen ñëpp ñu ñuy indi ndox ñu ñuy indi café Touba ñu ñuy indi mburu dimanche set setal national lundi fuural fuural ba mu kii am dina am tombalaa dina am loterie dina am jeu yëpp la yëpp nga fa dimanche set setal national lundi fuural ñu delloo buum ca mboy mboyka delluwaat ca jamono ju neex ja delluwaat ci souveraineté nationale delluwaat ci mbiri euh, prix wàññeeku ya delluwaat ci réew mu neex ba ba néew réew mu naat ga donc waa waajal leen ko wax ji du bari ndax waaye Ousmane day ñëw wax ja jeex na Ablaye Wade ah xam na kan mooy Amadou Ba ñu la ko fa def na yàqu bu naqari Ablaye Wade nee na képp kuy PDS ñëwal nga joindre ki nga xam ne le jeune coofe roofe doore gentil aimable ouvert d'esprit borom gis-gis yu leer yi ki nga borom loxo yi set yi le gentleman le président le cinquième président de la république du Sénégal Diomaye fay kii di Abdoulaye Wade nee na jàppale leen Diomaye fay nee na képp ku ko yaakaar wóolu ko te muy dëgg ci yow dama jàppale Diomaye fay doomam Karim Wade ne na képp ku bëgg dëgg bi bëgg dëgg bi bëgg dëkk bi damal jàppale Diomaye Faye ñi ñi jeexal nañ <laughs> ñi kuñ dese <laughs> jeexal nañ de Abdoulaye Macky Sall àndul ak ñoom ndax xam na ni waaj ji xaj la Abdoulaye Wade xam na ko Abdoulaye Wade ci moom la nekkee directeur impôt et domaine sàcc fay milliards sàcc fay suuf Abdoulaye xam na ko nee na nee na kii nit ko bon la ki nga xam ni moom mooy euh, doomu Abdoulaye Wade Karim Wade xam na ko nee na nit ku bon la ah Abdoulaye Macky Sall nee na tamit c'est le plus mauvais c'est c'est le c'est le mauvais mais le meilleur de mauvais donc ayca na buubu ci boppam moom moo ne c'est le moindre mal ñun nag duñ fi bàyyi moindre mal ayca ayca ayca ayca ayca kaay Amadou kaay kaay yoroog say fenkat tey laa dégg lu ne Amadou ca sa gars yi tere nañ maa nalaw sama bët yi gis nga nu mu nu mu suuloo sa gars yi sonal nañ ma ba fajar ñi ngi wax ca jub daal moo am solo jomaa yaa ngi liggéey Sonko ngi liggéey yow sa nit ñu ngi wër di ma woo woo dañ ma woo woo woo ba maa la yërëm Amadou de bàyyi fenn bàyyi fenn kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay bul def kaay eh, eh, eh, kaay kaay nga naan benn nga yor kaay kaay léegi da ngaa ragal tubaab yi yëpp ñu ñun ragal tubaab ñi ñeme nit ku ñuul ñi wax tubaab bi moo polygame nga nga ñëw di ñu wax si sañu télé di wax wolof malal melay woo di la laaj moo la gën a xam malal rappeur la nekk ci see bi xam na sa premier jabar xam na sa deuxième jabar moo tax <laughs> nee na ma dama koy bañow sos ci miir miir wis la la gën a xam nga de ne malal mu la laajee loolu ak la xam ko sax dafa ñëw di avouer sa ñaari jabar xam moo la gën a xam ne ñaar nga yor barke alxuraan <laughs> ay ko def sax daa génn di reetaan naan bi mu mun a fen fen rek ngay def malal la gën a xam say ñaari jabar xam na sa jabar bu ne fu mu dëkk xam na say doom xam na Abdou xam na Ibou Ba xam na Noa xam na say ñaari seex malal di rappeur di boy town yàgg ci town bi xam na bu baax <laughs> yow da yow da ngaa réew da nga a fen da ngaa ragal tubaab yi ñeme nit du ñuul yi bu dee tubaab yi nga ragal ne yow do monogame nga boo ñëwee ci ñun di làkki wolof naa non benn jabar di daw da ngaa ragal tubaab yi ñeme nit du ñuul yi di nga kaay kaay kaay dañuy set setal ñu te duñ la fi bàyyi kaay kaay indi indi say gàngoor sàcc yi yi ngeen doon dëmm yi ngeen doon lekk catholique yi. Hmm, kaay kaay kaay kaay ayca ayca ayca ayca nasaf nasaf nasaf ayca bale ba na jël leen bale jël bale bu leen fi bàyyi de buub tuuri ca xaj buub tuuri ca xaj jël leen bale Amadou kaay ba sàcc rek sàcc nee da koo sàcc sàcc ma duggee ci dossier Mame Mbaye ba ci laa comprendre lan moo indi Mame Mbaye Niang ne àdduna munul neex ba mu jàppale Amadou Ba Amadou Ba wooye na ko nu ne <laughs> nakate man mbambay ñaa mbambay ñaa gars yi dañ ko yab rek mbambay ñaa la mu sàccoon bu dee cent pour cent la quatre vingt pour cent yi Amadou Ba ko dóor <laughs> dossier boobu noonu non man du ma ci dugg dama tiit maa ngi doo ko comprendre lan moo tax mbambay ñaa bañ Amadou Ba te ñoo ko lekkandoo xaalis boobu ñoo ko lekkandoo warax ñoo ko séddoo moom moo ko ëppale Amadou Ba moo ko ci ëppale finance la jóge finance moo tax kan lafa fa Ba dugalaat fàtte ngeen bu mu paree ci Mamba ñaa fa la dugalee booyam ba booy ba moo mujjee nekk foofu <laughs> laaj leen ko Pape Malick Ndour fépp fu Mamba ñaa jaaroon Pape Malick Ndour lafa fa Ba dóor di dóor rek Amadou Ba mooy dëmm lekk xaalisu mambay ñaa ba mambay ñaa sàcc ko mu ne ko kaay kaay kaay kaay joxuma la ko noonu pour nga yóbbu ko kaay jox ma sama wàll jël xaaj ba bàyyi mambay ñaa mu dem mambay problème mu daw bàyyi ko ci biir mooy mambay ñaa nee na maam de mbay ñaa mbaam mbay ñaa mbaam mbay ñaa nag loolu la meree sa ak ko jàppale en ak Locafrique xaadim ba ñooñu bëgguñu dégg Amadou Ba koo koy xaj du ma duggee ci dossier ba naka te sa waaye fa jàpp dóor xaaj ba yoon suba la dossier yi suba la bu leen bu leen ma gaaw wax loo waay ma duggaat ci dossier wu ki nga xam ne mooy Mamour Diallo 94 milliards ya ndekete 94 milliards ya tamit <laughs> Amadou Ba mooy dëmm <laughs> lu mu génne dóor après naa dugg tam ci poli tenue policier yi tenue gendarme ya si Amadou Julde voleur ba kan euh, kanguru Amadou kanguru ba ay Amadou kanguru kanguru ba gis ngeen ko foto bi Amadou kanguru ba Amadou kanguru ba loolu suba la <laughs> da ngay mën a sàcc rek gis nga sa kër gi sa kër gi lañ jël ci kaw lépp ci biir benn la dañ la indi beneen <laughs> ak yëpp kër yi nga bëri ay yow yaa bëri kër mais nan la nit di amee loolu ci kër ci àdduna ak ci terrain ak ci ranch yow yaa bon Amadou yaa bon ngay yónni say nit ku nekk ñëw ñu ne yooyu dañ may dóor kenn ki njëkk a ñëw di wax ay wax moolaa bul ci dugal xale yi xale yi bokkuñu ci xale yi lii xale yi laa xale yi ngir yàlla ñu la koy ñaan mun ngaa kii Amadou pare ngeen ne da ngeen may escalier quoi <laughs> nee na yoo Amadou Ba toog fu mu toog di jël téléphone yi di joxe ñu may escalier ñoo tax naraw mu nii xool suma sama bëri nu mu suuloo Amadou Kangourou Ba nee na man lay escalier quoi nee na man lay escalier. <laughs> jël keneen ñëw jël booy fi bàyyi loolu quoi affaire jii yoo xam nga Amadou Lo neexu ko yëfu jabaram yi nga koy c'est sa vie privée ngay génne sa vie privée di ko exposer dans dans dans dans la dans la rue publique c'est pas c'est pas joli yow non moo laa lu fàttal loolu quoi wax nga ci ba sonn fàttal loolu mooy ah d'accord d'accord d'accord si si naa ko bàyyi <laughs> naa ko bàyyi waaw defal loolu waaye ah, jàpp ko quoi xam nga loolu dafay déranger grand bi xam nga loolu day da koy mettre ma à l'aise ma <laughs> ne d'accord d'accord <laughs> ñu dañ may escalier quoi ñii ñii Amadou yónni ñi Amadou Kangourou Ba ñii di wax waxu ay doomam naan dañ siy génne doomam ñee di wax waxu euh, <laughs> pour ma bàyyi ko parce que wax naa ci ba sonn ci jabaram yi ñii di wax nangam ak nangam <laughs> d'accord suba dina leer waxuma dara ñii sosal sama papa ji quoi xaar ma ñëw dem man nee nañ sama papa ji. Amadou Ba paa bi Locafrique ne ne <laughs> nee nañ moo takk Mamita Kane <laughs> ne nañ ñun dañoo jaawale Mamita Kane ne dañoo jaawale Amadou Ba yi Amadou Ba paa boobu ñaari jabar la doomam ñu dem jëli photo Xaadim Ba paa boobu mun naa jur Amadou Ba mag goo xam ne lu ko Amadou Ba def ci ñaaw téef ngeen di tudd turam yéen a réew Amadou Ba boobu moom Amadou Ba moo bëggoon nangu Locafrique ci moom jox ko Xaadim Ba yéenay dëmm yéen APR yéen ku leen bàyyi ci yéen rey sax la yéen rey sax mérité ngeen ko ngeen di fenal sama papa ji Amadou Ba yéen doo nit barke alxuraan ay dëmm ngeen ay lekkkatu nit ngeen ma ñàkk sama ndey ku leen rey dem ajana ndax yéen xeet goo xam ne war ngeen waru leen fay des yéen bon weeru koor moo tax ñi moo ma saaga seen nday yéen nangam taan seen nday sama papa jooju ngeen jàpp di ko tilimal pa boo xam ni liggéeykat boo xam ni seen moom bu muy liggéey yéen seen maam yi dañ doon daw pa bi nekk défoncé di jaay ay de euh, euh, détachées ba indi entreprise am teg xaadim ba jël xaadim ba ñoo doon foowandoo ABC yaayam Idrissa Gueye la Idrissa Gueye mooy baayam Idrissa Gueye këram ak sama kër maam ñoo takkaloo benn benn mur boo taxoon kër Idrissa Gueye naan ae eh, mun ngaa taxaw kër Idrissa Gueye di ma woo Idrissa këram ak sama kër maam ñoo takkaloo foofu la sama baay nekkoon ak sama ndey sama rakk yëpp fa lañ juddoo